sala salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Mame Ngor nekk tey conseil municipal à la ville de Rufisque nekk président mouvement Déclic bokk ci coalition bii di Benno Bokk Yaakaar muy euh, acteur culturel aussi ah foofu la euh, dooree en tout cas ay activité am Euh, ngay évoluer particulièrement aussi dans le business xam nañ ne homme d'affaires nga euh, borom Jazaka Land yaa ma gën a xam lu muy signifier voilà mu nekk benn complexe boo xam ne taxawal nga ko foofu ci Rufisque foofu ci cité Jazaka euh, ñooy lay nuyu di la jaajëfal bàyyi la nga nuyoog mbokku internet. waaw Cheikh Tidiane lay nuyu di am contentement. di la baalu ak nag di baalu ak internet yëpp internet yëpp yi nga xam ni tey jii ñu ngi ñuy suivre à travers euh, Sénégal ci tabaski bi nga xam ni euh, ci lañ jóge di ñaan Sénégal yàlla def ci jàmm et di la remercier ci euh, taamu bi nga ma taamu def ak man émission bi nga xam ni ñëpp xam nañ ni fi mu toll dañ nekk ci campagne législative yoo xam ni mu ngi démarré demb ci bisu tabaski donc tey di lendemain tabaski nga invité ma def lu xalaat ni bu ñu defee émission dina nekk lii nga woo man nga yëkkati baat bi tuuti ma gën la dégg waaw yaakaar naa yaa may dégg ah waaw maa dégg voilà donc maa ngi lay remercier bu baax ci woo bi ma woo nii ci remercier tamit euh, ñi nga xam ni ñëpp ñu ngi jël seen temps pour xool émission bi euh, nuyu tamit waa euh, coalition bi nga xam di ñaan yàlla incha allah le 31. d' accord nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñuy dem ci élection législative campagne bi tàmbali na démb ci minuit euh, ndax ngeen koy waajalee foofu ci Rufisque yow en tant que membre Benno Bokk Yaakaar wala seen coalition bi globalement ndax ngeen di waajalee foofu élection yi euh, ci doorteel campagne bi. waaw ni koy waajale moom mooy euh, xam nga boo xoolee ci local yi ñu bëri ñoo xam ne dañu ànd ak président Macky Sall dañu tasaaroo woon mais bii pas defe naa ñëpp daje nañu euh, ñi nga xam ne ñu ngi biir APR ak ñi nga xam ne ay alliés ñëpp ñëw ànd ak président euh, pour jàppale ko mu am majorité mun a liggéey liggéey boo xam ne liggéey war tàmbali nañ ko nag euh, daje nañ ñëpp monté comité électoraux yi ñi nga xam ni ñoo nekk est ñi nekk noor ak ñu nekk ouest ak ñi nekk centre ñëpp daje ci ci ci ci gox goxaat yeeg yëpp daje moom mooy euh, tête de file ñëpp gis ni ñun ñëpp ànd nañ après na kenn ku nekk dem ci sa gox mën a ànd ak ñi ngay àndal mën a liggéey def porte à porte fii ñuy waxtaan que tey jàppale président Macky Sall naa ni yomb na li tax mu yomb mooy dafa nekk nit koo xam ne am na bilan am na lu mu def Sénégal ñëpp gis nañ te tey ji li mu fi def yaakaar naa ni Abdou Diouf jaar na fi def ko Abdoulaye Wade jaar na fi def ko Senghor def ko fi Macky Sall est le meilleur président que le Sénégal n'a jamais eu c'est un travailleur moo am nag ay bandi salte yoo xam ne ay tilimalkat lañ yoo xam ne dañu taxaw bu tilimal hmm. léegi nag ñi ànd ak Macky Sall ñoo war a am fulla ak fayda li fi président def ñu won ñu wan ko askan bi taxaw tem ci wan ko askan bi parce que tey jii ñëpp xam nañu ni TER bii nga gis ni bi muy commencé Sénégal ñu bëri mooy les trafiquants de personnalité là li nga xam ne mooy association de malfaiteurs comme genre yeewi askan bi nii ñëpp fi lañ taxawoon naan TER baaxul ay milliards lañ ci dépassé mais tey ñoom ñëpp ñi ko doon wax tey nangu nañ ni TER lu am solo hmm. tey jii di dëkk Pikine Géejawaay Tëngéej. d' accord ñu des ñu des tamit loolu bilan la yow yaa ngi. leen gis. Ah. ñooñu ñëpp tey jii ñu ngi profité wu ci TER bi. donc Macky dafa am bilan donc nag jàppale ko ñu am major mu am majorité dafa yomb. waaw. loolu bilan bi la ngay ngay tàmbali mais ñu des bi léegi Tëngéej euh, élection yi dem mooy élection législative maanaam élection la yoo xam ne gox yi dañuy jël ay nit ñu dem en tout cas représenter leen foofu ci hémicycle bi foofu ci assemblée nationale euh, te boo représenté ab askan jàpp naa ne li war mooy souvent da ngay wax indaale problème yi nga xam ne askan woowu ñooy koy jànkonteel euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñooy koy ñooy koy jànkonteel ci seen i nekkin ci seen i doxin en terme de déplacement en terme de cadre de vie en terme économique ak ak yooyu noonu yëpp te nga foofu nga dëkk xam nañ ne quand même problème yaa nga fa ba tey euh, exemple caniveau boobu nga xam ne à ciel ouvert moo nga fa depuis cinquante wala sax mu weesu ko léegi ba jusqu'à présent le problème n'est pas résolu est-ce que yéen a ngi préparé yi mel noonu ci terrain bi pour boo leen demee rencontrer population waaw xam nga tey jii Tëngéej ñëpp xam nañ ne am na ay moom te tey yàlla dogal na ñu ñi nga xam ne tey jii yëpp ay responsable politique lañ tey jii ku mel ni man parce que tamit député yi dañ leen fal pour ñuy wax les mots de Rufisque mais am na ñeneen ñi fi nekk ñoo xam ne tamit ay responsable lañ yoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk di jàppale président ñi nekk ay ministre ñi nekk ay maire ñi nekk ay député ñi nekk ay conseillers ñëpp war a ànd à l'unanimité wane liggéey bi nga xam ne moom la président liggéey en même temps problème bi nga xam ne Rufisquois yi dañ koy jàngoon jànkonteel ñu mën ko euh, wax président mu faj ko hmm. loolu nag taxaw nañ ci commencé nañ ko parce que boo xoolee génération bi fi nekkoon ak génération bi fi nekk léegi dafa changé parce que tey jii man boo xoolee yaa ay quelques mois ci ginnaaw amoon naa fi coow bu rëy boo xam ne ñëpp gis nañ maam góor mu taxaw ci benn situation boo xam ne taxaw di xeex di dem ba di saaga sax ndax bugg tëngëj baax hmm. donc nag tey jii ñun ñu gisee président mu tànn ay nit arrofis ñu nangoo plié wu ànd ak ñooñu jàppale leen pour ñooñu mun a nekk ay député ëllëg ñu mun a taxawal tëngëj dañuy gis ne ñooñu président tànn tey jii du tànneef dañ leen tànn rek pour jox leen oto jox leen 4 x ñu toog ci ay climatiseur ñun ñu ànd ak ñoom dem wuti voir nit ñi ba am ko dañuy am droit ci ñoom dañuy am lu ñu leen mën bi siffler pour ñu koy wax ci hémicycle bi pour ñu mun ko def pour refé te keroog bi ñu président euh, recevoir y a pas longtemps semaine bële passé président recevoir na waa Tëngéej yëpp ci biir waxtaan xamal nañ ko ni ko Tëngéej dafa bari problème hmm. mais mu ñaan ñu bàyyi leen ba élection yi passé dem leen ngeen liggéey fexe ñoo am majorité incha allah bu loolu yëpp jàllee ñu xool nan lañ mën a def pour créer leneen lu bees beneen Tëngéej bu bees te man hmm. maam man bokk Rufisquois yi nga xam ne am nañ ci man confiance te wóolum te sénégalais yi ku xam maam góor xam ni man ma ci daraay caaxaan ñi nga xam ne damay jóg sol suma dàll di xeex pour ñoom ñu nekk ay député président am majorité duma leen may fu ñu yekk seen nak mm-hmm. tey tali yi baaxul ci tëngëj dañ ci wax ces prédateurs étrangers yi nga xam ne dañ ñëw si dëkk bi jël tëngëj def ko atelier parce que tey ji boo xoolee tëngëj dafa nekk ci diggante Diamniadio ak Dakar mm-hmm. te moom mooy entrée presque pratiquement Tëngéej mooy entrée wu Ndakaaru nit mënul dugg ci biir Ndakaar sans pour autant nga jaar par le fixe. très bien très très bien léegi nag Tëngéej dafa nekk ci buntu ndakaar nekk ci diggante jam ñaajo ak Dakar Diamniadio nekk une nouvelle ville moo am ay installation yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko fay installé de luxe tey Dakar boo xoolee am na luxe mais ñu ngi continuer di ko def mm-hmm. mais nag dafay am ay prédateurs étrangers yoo xam ne dañuy bëgg a ñëw nekk Tëngéej parce que day nekk ci diggante jam ak dakaar ñu bëgg a jël Tëngéej def ko atelier te loolu ñun la nouvelle génération duñ ko nangu parce que kenn du ñëw jël say produits nocifs di ko utiliser fi Rufisque ay nga xam ne seen durée de vie détruite parce que ay produit toxiques lañ fi utiliser ay produit yoo xam ni day reyaat te loolu tey ji am na ñoo xam ne tàmbali nañ ko fii te ñu ngi xeex ak ñoom lu mel ni usine Biza bi nekk ci sortie bis bi ñëpp gis nañ ni tey ji ñoo ngi ñëw installé wu dans un quartier def fa centrale à muy rey Rufisque yi tey man mi nga xam ne nekkuma député taxaw naa di ci xeex ñoom ba tey ji conseil municipal samedi bi passé bi ko defee même ñi nga xam ne tey bokk ñu ci mouvance présidentielle te doon ay Rufisquois dañu maam góor ku ñëwati Tëngéej ji fi installé loo xam ni dafa ànd ak ay produits nocifs wala loo xam ne dès lors Rufisquois yi da ngay di def politique parce dañu bëgg tur jógu ñu def politique parce que dañu bëgg xaalis wala dafa am ay privilèges yu ñu jox te léegi dëkk mooy suñu gox liñ fi nekk dañoo nekk xale yi juddoo fi màgg fi gis ñu fi nekkoon politique rek nekk seen métier defuñu dara ci dëkk bi ñun ñu jóg ànd ak président di xeex pour changer loolu donc nag tey ñun li ñuy wax Rufisquois yi mooy ñu woote Benno Bokk Yaakaar tey jii am ay député yoo xam ne député yoo xam ne c'est des fils de Rufisque ñu ñëpp ñu ànd taxaw li nga xam ne moom la Tëngéej di jooy yëpp ñu mën ko fay d'accord Rufisque la Euh, ñu génn ci élection locale y a pas longtemps ñu laminé leen foofu da ngeen perte la ville perte ngeen commune yu bëri ci benn département bi nax ngeen di fas yéene taxawee ba mën a contourner réalité électorale boobu nga xam ne am na fa ci ci ci Rufisque waaw xam nga tey jii boo xoolee tëngee euh, du du du du dañu laminé non non non parce que boo xoolee man nii. non perte ñi perte waaye askan wi ñoo wa non ñoo gañee xam nga lu tax ñu gañee. yeneen commune yi ah, benn Benno Bokk Yaakaar moo gañe boppam parce que mm-hmm. man ànd moom nag Benno. ok dama am ay voix. François am na beneen waay fi nekk boo xam ni tey Benno la àndal àndul woon ak ñun. Mm-hmm. madame Yoni Thiam noonu. am y' a beaucoup de gens ya a une dizaine de personnes yoo xam ne boo calculer seen i voix yëpp man na vingt cinq mille voix te ñooñu ñëpp ànduñu woon ak ànduñu woon ak euh, Benno ci local waa tey bennoo la ñu àndal ñooñu tey jii bu ñu àndoon ak benno bu ñu àndoon ak parce que boo xoolee kii jël des ci élection yi euh, boo xoolee dix mille huit cent voix moom la yeewi am kii jël des dix mille voix la am te benno la bokk donc man su jëloon samay mille deux cent cinquante voix mille deux cent soixante six voix yi ma am euh, ville rek moom mooy nekk maire hmm. muy Ismaïla Madior bi nga xam ne moom le président jiitaloon fi hmm. mooy waa benno yi quoi bi ñu dajaloo am boo xoolee ay huit cent voix rek la leen yeewi rawe mais mm. tasaaroo boobu ñu tasaaroo woon moo tax yeewi gagné mais mm. léegi sénégalais yi yeewu nañ ci waa yeewi parce que waa yeewi askan bi nekkuñu ay nit yoo xam ne dañu ñëw pour liggéey soo xoolee am na ay maire yoo xam ne bi ñu leen faleeg léegi ay juróomi weer la ñuy sàcc a defaru daal yu baax sax am ah? mais la femme de Padois là la volé gars yi ne dafa sàcc na neuf millions mm. est-ce que comprendre la xam nga gars yi dañu commencé rek commencé dóor askan bi est-ce que la beneen bi ci topp mooy réew mu am pétrole ak gaz. Mm-hmm. kenn du ko jox xale guy fooy almet. Mm-hmm. Mm-hmm. non dinañ dinañ yegg foofu. dinañ yegg foofu dañuy dafa am foo dafa am foo dem dafa am foo ah. dugg. nga ni ah. gars dañu lamit gars yi amuñu dara. Mm. waa bennoo ñoo tasaaroo ñoom ñu porox ndollu ci. waaw loolu rek la voilà. Mm. léegi léegi est-ce que est-ce au niveau au niveau départemental ak Omar Gueye mi nga xam ne. Euh, moom mi ci boppam dañ ko dañ ko gagné foofu ci ci ci ci Sangalkam est-ce que créé ngeen réellement benn dynamique unitaire autour de la personne de Oumar Gueye mi nga xam ne mooy piloté élection yi foofu au niveau départemental. waaw xam nga man li ma gën a xam mooy Tëngéej département bi miin naa ko trop. gis naa ni euh, euh, Ndiagne Diop il a du monde derrière lui. moom hmm. Omar am na tey Omar Gueye li mu am ak li Ndiagne Diop am. tey Pape Pape Sow mi nga xam ne tey moo gagné. Mm-hmm. Omar Gueye Pape Sow mi ko gagné soo jëlee ay voix Pape euh, voix Omar Gueye boole ak ay ay voix Ndiagne ñoom ñoo ko ëppale. Mm-hmm. mooy li ma la waxoon sànq rek laa lay tontuwaat. Mm-hmm. mooy tey ji ci division soxorante ak iñaanante ak xeebante moo tax Benno Bokk Yaakaar perte locale yi mais local bokkul ak législative législative moom saway ni ñu ànd mooy fu Benno am cent ñoom treize am. Hmm. te te nag kaay ma benn affaire tey jii ñii nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarloo muy waa yeewu ke lan lañ def si dëkk bi ay ay xola ay sàcce ay agresseur ay raykatu nit ñoo ñoo ànd bi hmm. association de malfaiteurs la ñi ko jiite ñii ñii ay raykatu nit lañ tey Barthélémy lañ ko jiiñ rey nit moom lañ ko jiiñ law wax Sonko lan lañ koy jiiñ viol comprendre la Khalifa Sall dafa sàcc xaalis dëkk bi ñuy jàpp ko tëj ko ci kaso bi la ko bal ba mu ñëwee dafa fekkoon benn li ñu sàcc bu amoon ci mairie bi mu ñëw continuer ko bañ ko jàppee mu naan li ñëpp doon def lay def yow boo fekkee ñëpp di sàcc ngay sàcc kay bu ñu la jàppee sàcc nga <laughs> Aïda Mbodj moo tuddoon Ablaye Wade Fantomas d'accord suba teel naan ma carte ma caution d'accord yoxosu euh, jéem a ñooxu Macky Sall ba sonn Macky jëlu ko moom moo ah. wàññeeku dem taxaw Habib Sy man li ma gën a metti sama àddina mooy keroog bi waa Yewwi wootee seen dernière euh, sortie boobu ñuy wax Habib si génn këram lekk ceebam ba suur naan ataayam sol genre tëréem yooyu wàcc dox ba ci ëtt bi ne ana booy ñu ngi taalan ah? boo yaa ngi yëngal gars yi ni mu wàññee ko waat teg deuxième barada dañ yëpp ñi d'accord ñu ñu progresser rapidement ay doomu jàmbur ngeen utiliser leen cher à canon d'accord euh, bon élection yi xam naa ne du yomb Dakar fexe ngeen ba liste en tout cas Barthélémy Dias bi rek mooy mooy jàll Ousmane Sonko au niveau national bi jàll Euh, moom nit ci boppam moom nga doon attaque léegi doon ko doon ko doon ko provoqué doon ko sànni quelque flash ci léegi nii euh, dëgg nañu propos yi mu tenir si Ziguinchor nee na président Macky Sall buggul waa Casamance en tout dafa am problème ak ñoom rawatina ñi nga xam ne dañoo sant Badji Badji Bassène ak Sonko euh, ñu bëri ñu jàpp ne terme wax ju mel noonu waxu la yow nax nga ko jàngatee rapidement. Ah, yow gis na li xewoon Rwanda affaire xeet moo ko indi woon ba génocide am fa Ousmane Sonko quelqu'un boo xam ne da ñaan yàlla nga ni da nga bëgg a diriger Sénégal waloo ñëw yor jikoy séparatiste hmm. te Ousmane Sonko ba mu dalee politique ba léegi man maay sénégalais bi ko njëkk a ba ma dalee wax si moom boobu yu bëri ñeme wu ñu wax si moom parce que ku wax ci moom ñu saagal hmm. Ousmane Sonko c'est un séparatiste du wax lu baax du def lu baax Ousmane Sonko nit la koo xam ne nit ku tilim la nit ku salte la tey mag moom bu fekkoon non dafa salte bàyyi jaamur yow man nga wax politique rek mais bul dugg foofu non mooy salte non salte mu ngi tàmbalee ci yow nga yor borom nga nekk borom kër am ay doom jàng école jaay sa projet non ma ne jaay sa projet même ma yëgali nga jaay sa projet la jeunesse sénégalaise ba ñu gëm la nga xëy weeru koor jot ñi ñi toog seen kër di woor yow bu timisee nga taal sa oto daq sa chauffeur dàq say garde corps sol sa mbaxana dem di nëbbatu di dugg ci ay gorgot bañ jiñ nga foofu yokk nga génn nga ne nga ne waaye mooy gargot rek mooy fi ñuy làmbatoo xale yeeg yooyu bañ ko ne bañ ko ne dem nga fa daf ni dem naa fa ku set du dem foofu ñi set boog demuñu fa est-ce la nga génn jël doomu doomu jàmbur yi bëgg leen def arme de guerre ñu xeexal la ñaata nit ñoo dee ci tur Ousmane Sonko pas normal xam la tey Ousmane Sonko warul taxaw di wax naan ay Macky Sall dafa bañ ñi sant Bassène ñi sant lii ñi sant loolu waru ko wax ba pare il est irresponsable bi mu ko waxee xam ni Sénégal yëpp dañoo jóg dal ci kawam amatul fu mu jëm mu génn li lay wan te fu mu toll mu génn naan ñooñu amuñu conseil bu ñu may jox dama ko xool tey si suba di reetaan kii dafa ñàkk a fayda d'accord Guy Marius Sagna nee na dafa yëpp Sénégalais yi Guy Marius Sagna nee na jaratul ñu yàkkamte président Macky Sall nan nit ñi tenir parce que eh, eh, Macky Sall benn tabaski moo ko desee ci bokku bokku Sénégal. dama bëgg nga déglu ma bu baax ba Guy Marius Sagna biiralkat la. bii nga ne Guy Marius Sagna dama bii nga def na ko bon catholique. ak catholique yi ñu yeroo ak ni ñu baaxee. nga xam ni catholique benn jabar lay am du am ñaareel du am ñetteel du am ñeenteel. yow ngay ngay ngay ngay ngay burle doo fanaan sa kër di nekk ci biti di sumi sa tubay di def taati neen di laal beneen jigéen boo xam ne sëyu kenn mayu la ko loolu dafa ñaaw loolu lu salte la te gii Marius Sagna si loolu la dëkk Macky Sall sàcc la maggi Sall dictateur loolu mooy métier ñu koy pàdd gën def ko héros mu leen di nax di leen tëdde kooku war na taxaw di wax kooku amul modèle bi loolu vie privée la mën na am vie privée non dama ni dama ni Guy Marius Sagna ya amul dama ni gii Marius Sagna amul leçon bu muy jox benn sénégalais il est vulgaire dafa sàggan ah. dama ni moom moo xoola moo dama ni Guy Marius moom ak Ousmane Sonko ñoo mën a entre association tilim <laughs> dañu tilim si njubadi lañ nekk ñi viol lañ leen gi ñi ay ëmbalkat lañ tekkiwuñ dara defuñu dara si dëkk bi ils n'ont jamais rien fait pour mais Guy Marius Sagna lan la defal Sénégal d'accord rapidement gis nañu kin bis aussi euh, parce que il nous reste cinq minutes gis nañu kin bis mi nga xam ne taxawal na parti politique muy attaque président de la Euh, di attaqué Youssou Ndour déjà ci président très rapidement nga tënk ko ci une minute lan nga ko xelal en tant que artiste en tant que acteur politique aussi. non non xam nga Queen Biz moom su ma rakk la xarit la te nit ku baax la man moom la ma wan mais xam nga te mën na am man dama jàpp rek dafa juum parce que Youssou Ndour li mu def Sénégal nañu waxante dëgg y' a pas un artiste africain bu ko def pour son pays Alpha Blondy defu ko Tiken Jah Fakoly defu ko amul beneen artiste bu ko def. keroog maa ngi gis Alpha Blondy muy taxaw di wax ay wax mën leen day fen li mu wax dara du ci dëgg il n'a jamais rien fait Côte d'Ivoire lan la fa créé Youssou Ndour la dafa créé ay métier dafa créé ay liggéey jox ay jeunes ñuy liggéey Youssou Ndour mënoon a dem dëkki feneen man taggu mu Youssou Ndour am na rajo de Alpha Blondy Côte d'Ivoire Alpha Blondy waaye Alpha waaye rajo ala rajo moom moo fi liggéey ak jabar ku fay liggéey <laughs> waay waay waay yow arrêté waay dama ni Youssou Ndour li mu liggéey ci réew mi dafa rëy man nag dama jàpp ni pen dafa dafa juum sunu rakk la mun na politique mun na far opposition wax lu ko neex parce que sénégalaise la am na droit far fu ko neex kenn amul droit force ko pour mu far fenn suba sañoon nag Macky Sall lay man parce que moom suma xarit la man damay assumer sama moom dafa ma bëggal boppam fu ma gis day daw grand frère la assumer sama xarit la donc kooku mënuma ko conseiller lu dul lu baax li ma koy conseiller mooy Youssou Ndour ku baax Youssou Ndour parce que gis nañ la yow tamit bi nga duggee ci musique bi léegi ci lañ la commencé wax jazakalisation bi commencé feeñ est-ce que bu dëggee. mais jazakalisation la tey man maa ngi bokk ci ñu may def ci lu mu tudd affaire yi euh, dictionnaire bi yëpp maa nga fa xam nga xam na gisoo keroog sa waa ji mu ngi doon tëgg bool yu gars yi jazakalise ko <laughs> ak boolam yu tilim <laughs> est-ce que kii bi di moom moom xam naa ne war na wax jabaram war na yow yaa am technique xam naa ne dafa am ku koy woo. kala connexion bi mooy dem déggatuma la. allo yaa ngi dégg. maa ngi dégg nga ne loolu noonu. dama ni dama ni Queen Bees. Ah. du ko jazakaliser. Ah. Queen Bees dama koy fexe ndànk mu ñëw jàppale Macky Sall parce que xam naa ñi muy àndal demuñu. ah waaw baax na kon. dama jàpp ni suma rakk la mais dafa juum na ñëw jàppale na dem Youssou grand frère la. papaam ah. la. na ñëw jàppale ñiy dox association de malfaiteurs bi bu mu ànd ak ñoom. Hmm. waaw. d'accord yow léegi dernière question lan nga jàpp ne benn bokk yaakaar bu ñu fa bu ñu bu ñu fa jaaree fu ñu bu ñu fa jaaree dinañu dinañu mooy mooy Sall def. Macky benn benn bokk yaakaar dañu am lu kenn amul. dañu hmm. am leader boo xam ne dafa am bilan dafa liggéey. Macky dafa yaru Macky Sall defar na réew mi Macky Sall jox na cër sëriñ si Macky Sall jox na ñëpp cër kenn mës koo dégg wax mu wax wax bu ñaaw comprendre la Macky Sall tey jii mun nga taxaw naan sàcc la mën mënoo teg sa loxo ci lu mu jël mais ñii dañ leen a jàpp la mais dans le sac est-ce la ñu fi ñëw taxaw yëpp naan tey jii système système système tey Ousmane Sonko bu taxawee naan système bi système bi système bi te boo tourné gis Aïda Mbodj ci wetam gis Khalifa saal ci wetam gis Habib Sy ci wetam mais mais lan ngay wax te moom moo naan système nañ fi jëlee système bi nañ fi jëlee fii yow koo xam ne sa waxi démb buñ ko mëngalee sa waxi rek waxi tey lépp fen la yow doo wax dëgg lépp lu mu la wax tey bu subaa bu ñëwee leneen lay wax comprendre la encore une fois li may wax sénégalais yi mooy réew mu am pétrole am gaz kenn du ko jox xale buy fowe almet nan nga jàngatee rapidement naroon naa fa président euh, bon Ousmane Sonko ak président Umaru Embalo bu Guinée Bissau ci rapidement yan information nga ci am. est-ce que est-ce que woon gis waa ji pour jéem a pour procès Adji Sarr bi ñu bañ koo def parce que peut-être mën naa am film bi vidéo bi bu ñu ko wanee ah dina garaaw ci moom peut-être mu ñëw est-ce gis ko ni ko boo mënee ñaan xam nga gars yi mën nañ di yëg yëngal ci kaw di xumbal ci kaw fekk ci suuf ñu ngi ëpp pour mu seet. <laughs> xam nga la na parce que tey jii président boobu du moom mooy sàkku pour gis Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo sàkku pour gis ko man ci sama gis-gis. Mm. benn mun na nag comme ni temps yi mu ngi doon xaru di attaqué fii attaqué fii kenn jàpp ko parce que bëggoon nañu jàpp ko ci dara gars yi ne Ousmane Sonko dañ ko jàpp c'est un prisonnier politique te nag tey dafa am benn sénégalaise bu ko jiiñ viol bëgg a dem ak moom procès léegi nag su fekkee ni bañ na procès boobu am peut-être procès bi booy bi mën na yor ay affaire yoo xam ni suñ ko wanee ci télé bi mu xaru léegi mu ne est-ce que duma ma a gis Embalo bi comme booy Macky Sall wala xaritu Macky Sall pour ñu jéem a waxtaan président ñu jéem a xool nan la ñuy procès bi bañ a am boo du lu ma leer na hmm. mais xam nga xel day daw. d'accord d'accord nit bu jéemee xaru ba sonn kenn jàpp ko. peut-être ma na wut. leer la fin egg nañ ci émission bi ah. fin bi nii. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax bàyyi la rek nga tàggoog ci quelques secondes. waaw li may def mooy di la remercier di la di la di la encourager yow tamit nga nekk journaliste bu mag émission yi neex rek ngay def. et nit ñi xam ne ñun li ñuy wax dëgg lañ ci jublu. amuñu lu ñuy contrer nit amuñu lu ñuy bañ Sénégal